ay seen revue de ak El Hadji Ahmed Aidara. bàyyi ja doom ja nday ja doom ja waxeet siñoor am na bu dee wax waxeet amoon na fi termine yéene kay ne waxeet siñoor mi di Macky xam ngeen lan moo koy yoota ah parce que Macky Sall kat xamal na kon sénégalais na fi mu nekk nii nag dana yokk kon gouvernement bi lii nag moo tax ba ñenn kon ci askan wi commencé am daal am xel ñaar ci ay diggéewu Macky Sall waaw waaw te Macky Sall kat sénégalais buñ ko votelee jox ko téeméer boo jël juróom benn fukk juróom ya 65 pour ko tamit majorité ci assemblée nationale ke ngir daal maanaam kon réew mi xam ne kon gu mucc ayib la waaye gis nga Macky Sall kor Marème Faye ah mi ngi commencé nag maanaam daal di jëf ay jëf yoo xam ne daanaka moom la kilifaam nga kon nekkee woon maître Abdoulaye Wade Abdoulaye moomee nga xam ne kon élection ba daa neexoon lool Abdoulaye ñëw jënd Sénat ba wàññi kon mandat président ba wàññi ministre def ko kon fukk ak juróom-ñeent waaye la petit venant en mangeant waaw Abdoulaye Wade daal jékki-jékki rek ne man maay entraîneur ku ma neex dugal ku ma neex génne eh waay la bëgg njabootam gi am ko ci donqaasi gi Abdoulaye indiwaat juróom ñaari atu président mandat loolee loo kon sénégalais ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars gii ñu dàqe ko ci nguur gi ñu ne Macky ari Macky ari Macky ari ay Macky dikk na Macky Sall daal di ñuy dikk ne la woon woon ni na gouvernance de rupture ñaar fukki ministre ak juróom mu samp ko dindi Sénat bi ne ndaataata la xagu ndaa ndaat ak noos gi nga xam ne kon moom la nguur gi nekkee di train de vie de l'État da koy wàññi dee yëkkati kon audit ya waaye xoolal ma juróom benn weer kese kon la Macky Sall def ci donxaas gi mel ni daal na mën a nekk kon ci ay tànku kilifaam gi nga xam ni kon moo ko yar di maître xam kon dañ doon publicité di ko yuuxoo ca kaw na de yéene kaay ah, ko wër nii ak yenn ay punkal yoo xam ne ay personnalité lañ bokk ci ay alliéem dañ tibbee kon ñaari loxo ci keesu nguur gi boo ca toftalee suñu mii am na ñoo xam ne kon yàlla dénk na leen am kilifteef dañuy convoqué président ba mu dikk ne ko bul laal kii bul jege kee termine yéene kaay ne waaye askan wi day ah ñoom daal moom nañ seen bopp entraîneur bu ñu kontaanul am nañu sañ-sañ kon dàq ko jëlee ko fi bu dee sa yorin baaxul ñii nag ni ñu yoree nguur gi waaye daa yomb waay daa yomb trop ah waaw waaw ànd ak yàccaaral laas ne nguur gi day gëmm na kon ay bëtam ci ñaari téeméer ak juróom fukki oto yoo xam ne moom la sénateur yeeg député yoo kon yoroon gars yi dem na ñoog moom waaw waaw Macky Sall ci boppam commandé na lu ci tollu téeméer ak juróom fukki jaay oto yu bees sax ngir député ya laa ilaha kilifay bees yi nga xam ne daal ñoo fi nekk doomu jàngoro jo kon dugg na leen yorinu yàccaaral xam ne kon maar day taali dañoo jéemul yi nga xam ne ñoo fi nekkoon te nag fa muy mujjee du doon fen bi ci bopp comme kon moo cay xala de ndax alalam la moo koy fay la ko fi jee yéene kay te yokkute gi nga xam ne kon ni mi ko nañu ko ah, ci wàllum carburant beeg maanaam essence beeg yoo jee la mu na ma jur nag mooy gaz bi tey ñuy jënd gaz de lii ramte nag wala jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a génn Mamour Cissé ci enquête yéene kay ne sénégalais léegi xam nañu xel ne ñii yor tey réew mi dañ leen di nax waxuñu leen dëgg nax nañ leen làmbatu la ñu fi nekkee di tatone di taf yëngal loolee ñi nga xam ne ñooy suñu partenaires yee nekk ca bitim réew di nasaraan yi nañu ko le populaire ne sinistré waay dàq nañ leen kon ca école ya nguur gi ci boppam ay simi jël di ay takk ngir ñu génnee ña ne kon ca école yoo jee dàq leen kon ca biti sut ko ti jeene digital école ba kay daanaka dañ koo aj sax ba jëmi jamono ah waaw waaw ah yow BFM baa ngi nii di ñëw boo ca toftalee classe nga xam ne ken mënatu faa dugg ak classe yi nga xam ne nag daa am ndox laas ne ñi nga xam ne nag maanaam dañ leen génne kon ca école yoo jee xamuñu fu ñu jëm delluwaat nañ kon ci seeni kër laa ilaha illallah te kër yaa nga ay ndox boo ca tegee sa bët sa yaram daw ay fukk fukk laa lay wax nii ci ba maara day taali nit ne kon dellu nañu cax njabootug ñi loru ca mbënd moo nekk ca caaroy kaw 4 ak caaroy kaw 5 delluwaat nañ kon ci seeni kër ndax amuñu ay moyen mbeen ñi ngi ne man dee keroog ba ñu génnee ca école yëba léegi ni le maag sama njaboot gi ci sama kaw terrasse bii kon la ñuy fanaan maag samay doom muy taw wala muy ngelaw amul benn kaaraange te ñaar fukki junni dong lañ ñu jox te xam ngeen ne ñaar fukki junni kon mënta luwe dama koo mujj ngir dundal ci kon sama njaboot gi Baye Cheikh Diallo day sagal njabootam animateur ab animateur boo xam ne kon fexe na laa lay wax nii ba am exclusivité xabaar boo xam ni kon kenn amu ko laas ne dama ni animateur bu am scoop scoop daaw ñu ko faral di gis waaye bi yoon am na de dana am ci fan yu néew moo animateur boobu kanaa xanaa Pape Cheikh Diallo moo xarañ de bu Zik FM ak bu Sen TV moom daal moo décroché kon exclusivité wu Abdoulaye Wade ca kër Abdoulaye Wade ca Versailles ca Paris la France la ilaha illallah ma ne bande annonce bi di publicité bi mi ngi jàll Sen TV barki ba léegi ni la Abdoulaye Wade na bàyyi seex ah danaa porté kon plainte nguuru Sénégal ga waxuma ma ke de nguuru Sénégal ndax ni kon tuumal defal ñu ko ci ay jël ay objet d'art ak xaw ma ay sàcc lan ak lan ak lan jàppale bee jay bay seex ah jay waxeet si ñoor Walf Grand Place ne Macky Sall dee nee bu ko sénégalais yi di wooyee wax waxeet yéene kaay gi ne ko waay yow li nga def daa weesu wax waxeet kor Marème Faye ne gouvernement bi fii lay yàq nga demaat ne na ngay yokkaat gouvernement nga ne loolu du wax waxeet Baara Ndiaye bu APR ci libération yéene tontu na Fadel Barro bu Y'en a marre ne xanaa a la ay lobby kon di manipuler dari bi son ci tribune Sall ci boppam moo war kon sëgg ci bëgg bëgg ndaw yi nga xam ne ñoo nekkoon ci wetam ci xeex bi ba am kon ñu ci jaari ñàkk seenu bakkan te man nag la ma jàpp sax mooy Macky Sall mi yëfu Abdoulaye Wade dong lay def dadi bi son kon yemu ca ndaxte nee na ab dat daal lañ koy may bu ko weesoo ay weer di ñëw ah ndaw yi kon danañu wàccaat ci mbedd mi ñaxtu goo kon dana doorati cay ndaw ya ndaw yaa nga ca nawetaan ba stade yéene kaay ne orkapu Dakar ah ña ngay baa ngi juróom-ñetti ASC ci lëkkaloo ak seen TV la de ku gagné coupe boobee danañ yéene kaay ne ki ñu gagné ci final bi di am un million cinq cent troisième place bi di am cinq cent mille quatrième place bi di am deux cent cinquante mille mu yow te ASC bu ne jox nañ la fanweeri junni ORCAV mi organisé waa nawetaan jox nañ leen téeméeri junni ak juróom-benn fukk huit cent mille wal fukki am place ne waa mais lan moo tax ba góor ñi ñoom mënuñoo yem ci seeni jabar lu dul di trompé seeni jabar kon di leen nax di wuti yeneen jigéen waa ji gën koo joge nga mujj topp kon gone ga waa ji ne man daal sama dëgg laay bëgg ca kaw sama jabar ma ko i la ilaha illallah waaw waaw je ne suis pas satisfait sexuellement i la ilaha illallah tey lii soxna si ne man dee ku góor ki may bëgganteel jabaram xam na ma xam na ni damay bëgganteeg jëkkër jéem na ma fee def xarit ma lànk ndaari tëdd ci suuf sama nga ñu nekkul ca la ñeneen ñay wax yéene kaa gi waa ji ne loolee yëpp dëgg la sàpp gée ngi ci bis bu nekk ceeb bu yàggee dalay sàpp i <laughs> alaaji yàlla saafara na dossier bi bu yàgg-yàgg ba mu ñu waxee ne jël leen ba ñeent bu boobaa dootul nekkati ceeb ceeb ceeb ceeb ceeb ceeb ceeb chaque jour ceeb léeg-léeg nga supp kànja doomu daa maa fekk dëxin alaaji laaxal mbaa nga sombi boo ko mënul nga tëj kon alaaji tëjal